Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا nuy joxe kàddu yu bàyyikoon ci jëw ñu sëñ Mbërin Fall ji sëñ Falil Fall mu ñaan su ma yàggal lu nu féral nu ko mooy njabootu mu bokkal sëriñ bi rakam yu baax yi suñu borom boole na muy yoo xam maa bàyyi ko jëloon ji di sa faal moom sëñ Mourou Moussa di ko si njaay mbeng di yoo xam ne moom bàyyi jëloon seen si sëñ Mourou Moussa di si am moom sëñ Mourou Mbenda ndigal loo xam ne da koo dikkee nag ca jëw suñu ja soppi mi baax ñëpp di sëñ Mourou Moussa ñoom suñu moom yàggal seen dund yi te wéral leen wéral leen àggal si yéen i baax ñi ñoom àggal si seen i baax ñëpp mu wax nag moom jënd seen seen seen xarim ji jënd seen tuwaay seen moom ndax mu wax joxe ndigal nag ñëw serfal gépp nag dafa bëggoon nag su naagee ci àjjuma ji ñu seenu di doon fanee fan ba fan ci weer yu nekk marché wan yeewoon ci gaar ba ndi ko marché gaar ba dafa bëgg la fan lépp dindi ko nag def ko fa barab xaaf barab ban bëgg dina wax waaye la fa newoon lépp daan la jóg rek loolu digal waa Kër Fall te seetal la ko digal te lu mu digal seetal lu suñu tubaab digal seetal Fall ñu dana am kuy bokk ci rek loolu daal mooy ndigal ñooy bàyyiwu ci fenn nag bàyyiwu ci ñen bàyyiwu ci lenn loolu ndigal moom ndigal lu yaatu loo xam ne comme euh, foo ne rek soo neexee bokk ci ndigal suñu tubaab bi lii ndax fàttali ko lay doon bu yaatu fàttali ko doon bu yàgg fàttali ko doon doon bu mat ndax ah, ne nekku àdduna rek loolu topp li ngi nekk ah, ndigal loolu du fay fu toll nii fu mu toll nii ba xam ndigal da ci ndigal yoo xam ne dafa gën a téye yomb a téye ci am xel lii ci la bokk nag mata booy si gaar ba bis koy dindi ah, loolu mu di mën naa yaatu lool ñu ñu ko digal noonu dañuy joxe seen wàll gi yàlla na ci ak jàmm si defee ko nu kayan jot lu na ko suñ bëgg ci rafetaay ci ci mat sëkk rek ndi ndigal mooy sunu dund aji dund ju ne nag nu mu gën a bari dund rek am xelam gën a dara yaakaar mu gën a dara te ndigal ndigal mooy sunu dund mooy sunu dund mooy mooy ñame daal di naan gi kon nag lu ko gën a bari rek sunu xel gën a dal ndax ñaari ndigal ci kër yoo xam ne mel na ni wala lenn gi kër lu wér rek loo xam ne moom jëfeeguñ ko waaye ndigal lu mujj am ñu ëpp doole jënd suñ suñ Fallu Mbàkke ju baax ji suñ yow Mbàkke mu suñ Fallu dafay yebal jëwriñam ji nga xam ne mooy Sëñ Maodo Muntaxa Sëñ Maodo Muntaxa mu suñ Fallu mu ñëw si waxoon gaaw bi ñu fi ne ñëpp xam ne ni su boo defoon aju moom moom suñ yow su déggee ñu ni bu suñ bu suñ Muntaxa Mbàkke déggee ni déggee déggoo aju ma aj eh, eh, eh, li doon doon gaaw su déggoo si mu tax mbak jël suñu tuwaay gaaw la woote kon foomu gaaw bi moom bu fekkoon aji ma la yoroon lu mu maa doon rek dafay fomm moom bàyyi ba ndigal loolu yi suñu tuwaay jàll ma fi noonu moom tax moom amoon na ci xel ko mel ni man ci leen daan lekk ci leen daan naan te suñu moom suñu fàllu ko waral bon daa dugg ci rajo bi ñu tudd Lamp Fall di woote ka am kàddu yoo xam koy dégg. ne su suñu digg kàddu jërëm ji Cheikh Cheikh Fra mu suñu fal Mbakke jërëm baax baax jooju dugg ci rajo moom di wax ci léegi waaye ban ne ban si si si Cheikh Fra dugg rek ah, si si si Mourtada daa ne cuuj boobu gisu ci yàlla rek moom moom baaram nu nga génn safara nu tontu ba ni mën a safar kenn wax kenn wax waaye ba mu digg kàddu suñu Fra rek moom nu nga wax moom. Eh, loolu topp naa ko lu yàgg yàgg daal moom moom su ma maaree sax su sam xam ne mandal na ma ndax nangoom guri googu rek ak jëfe gi ndigal rek waaye hmm. yéen yu bari yi mu def yoo xam rek moom si wax yëpp ci téléphone bi soo ko seetlu guy nag si wàllu ngi soññi mooy soññi boppam di soññi njaboot Sëriñ Faal gépp na rawatina ñu xam ne seen buntu Sëriñ Faal mooy si mbiram te tàmbale ko ci rakk yu baax yi xëy lu am ñooma mooy ñoom nooy moom xam dafa leen ak wér ak jàmm defal leen ko noonu muy yàlla ñoom ñëpp ci bokkoo ñoom pas-pas ñu toll na ku ne soññee rek léegi boobu daal ku ne ku ne nga bokk ci moom mas na bokk am xel mas na cee bokk ak xol mas na cee bokk wërsëg mas na bokk bokk tee képp ndax accident jàpp te ku mu neex sa xol képp rek bokk ci jëlul te ñëpp la neex nag ndax safaan yaa def te dëkk wala méngóo la dëkk tubaab bi kon bu ko suñu tubaab jëloo loolu yaakaar naa mbégte bi baax ñëpp doon ku ku bëggal loolu ku nekk mel na fekk ko rawatina nag ku ca bokk rawatina ku bëggal ñëpp ñëpp ñëpp def nag. ñu ngi def daal kàddu yooyu nan nan ko boole su su ndigal loolu la ñu joxoon ci rek muy ndigalul Madinatu Munawwara si léegi si yoon moo ci rek lu gën a bari nag gën ci noonu rek ndax fan jëm ndigal loolu fay jëriñ fii dañ koy mën a sàkkoo foofu des fa sàkku ndigal fii des ko sàkkoo nag am foofu la nga bëgg kon murid yi yow suñu mën faal gi yéen ci raw yéen kaddu suñu fàllu boobu koo koo jotal ko ne faw am loo yëg sa bopp nag ku ne jotal rek wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا